jàpp si biir euh, rapport euh, des comptes c'est vrai que ba ma kay xool tey si suma chronique ba may balaa ma lay dégg ba ma toog saytu xool affaire yi j'ai vu qu'effectivement si lu ñuy wax si xaalis bi yëpp un pour cent la woon matul un pour cent c'est moins de voilà matul c'est yaa ngi doon wax zéro sept pour cent man loolu tax ma neen du ma teg accès bi euh, quand bien même que yenn affaires yi am na mais du ma teg accès bi foofu man j'avais une autre lecture tout à fait politique hmm. pourquoi ma wax la ko d'abord benn mooy que bu ma xoolee président de la république wax ak premier ministre mooy que dafa am foo xamante ne foofu la bëgg a wax ji foofu la bëgg a yóbbu wax wax ji mooy yóbbu affaire bi ci chambre financière de la cour des comptes te boo yóbbu finance chambre financière de la cour des comptes mooy que faute yi de gestion dañuy wàññi doole sanction yi parce que président am na feneen foo xamante ne bu dee luubal am na mu avéré kooku tribunal la donc faw ko président wax ak lu mu tudd le ministre son ministre pour que ministre saisir euh, procureur pour que affaire bi mën a dem tribunal les sanctions ne sont plus les mêmes les tribunaux ne sont plus les mêmes donc man noonu la ko jàngal dama ne il y a une politisation de la du rapport de la Cour des comptes man noonu laa ko jàpp y une politisation te politisation bi pour muy commencé si man mu ngi commencé bés buñ ko bés buñ ko teg c'est vrai que nag nit ñi ils ont le droit jël seen décision le 12 décembre nga jël rapport bi teg ko le 12 décembre bés boo xamante ne si le premier ministre doon def sa déclaration de politique général bu bés bés boobu lañ ko publier si rapport boo xamante ne le 19 août le rapport définitif fa fa la jeex mais c'est le 12 décembre mu ne si ñeenti euh, weer yooyu pourquoi précisément bés booba pour man dafa am signification dafa am signification et ma curiosité de journaliste fa la fa fa euh, euh, lay taxaw pourquoi ñu def ko pourquoi ce jour bëgg naa bëgg naa jàpp si xam si parce que pour man dafa am solo dafa am solo d'autant plus que rapport bi président jox na ay instructions mais partenaire yoo xamante ne mooy les bailleurs ñoom tam dañu bokkoon si ñu laaj la publication du rapport ñoom dañ ko laaj dañ bokk si ñu laaj donc d'une manière ou d'une autre nit ñi waroon nañ si xam dara man suma problème par rapport à ça mooy que tey par exemple les emplois obligataires Sénégal dafa bokk si dëkk yoo xamante ne